bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabiilalamin wassalaatu wassalaamu ala asrafi al anbiyaai walmursalin sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain allahumma axrijna min zulumaati lwahmi wa akrimna bi nuuri lfahmi waftax calayna bi maxrifati alcilmi wa xassin axlaaqana bilxilmi wa saxxil lana abwaaba fadlika wansur alayna xazaa'ina raxmatika yaa arxamar raximin yaa rabbal aalamiin mbokk yi bàyyi xel ci Sud FM seen rajo asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ginnaaw bi ñu sante suñu borom subxaanahu wa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 di bëgg ci ni ngeen di toppe jotaay bi ñaan borom bi subxanahu wa mu nangul ñu sunuy jaamu ñaan ko mu jéggal ñu sunuy rëcc-rëcc ñaan ko mu barkeelal ñu suñu dund ñoo ngi nuyu soppe Al Misbah yi nekk ci biir réew mi ak ngi nekk bitim réew te di ñu bàyyi xel di leen ndokkeel bu baax ci weer wi nga xam ne ci lañu nekk di weeru rajab bokk ci weer yi nga xam ne weer yi ñu ormal la bokk. te loolu li muy tekki mooy weer yi nga xam ne jullit bi da ciy bàyyi xel ndax dafay am lu muy taxawee ci ak dundam yal nañu borom bi may ñu jeexal ko ak jàmm ndax dafa bokk ci weer yi nga xam ne day waajal weer wu tedd nga xam ne mooy weeru koor waaye ngëneel yu baree baree baree bari daje ci danañ ci ñëw incha allahu taala balañ koo jeexal ci waxtaan yi nga xamante ne danañ ci ñëw. waaye ñu ngi ciy ndokkeel jullit yépp mboolem ñi nga xam ne ñu ngi bàyyi xel seen diine ba bis bi léeg-léeg ñuy xool lan la tollool ci weer wi lala mu nekk biss yoo xam ne day doon fukk ak ñett wala fukk ñeent wala fukk ak juróom ci aw weer te doon biss yoo xam ne moom la wax ayaamul biit ñu koy bëgg a woor ndax di ci dundal seen diine la ñu ne weer bi weeru lan la ñu ne weer bi weeru muharram la di weer wu am taxawaay ci jullit ñi wala weer wi weeru rajab la ndax bañ a neenal seenu dund te noonu la yonent bi salaam salaatu wasalaam borom bi subhaanahu wa taala itam noonu la ñu bàyyee xel ndax dundu jullit bi da ko amal njariñ da ko amal njariñ yal na yàlla nangu sunuy ñaan te nangu seeni ñaan ndax fajaru dimanche dañuy faral di waxtaane lu jëm ci wàllu ñaan ak yi nga xam ne moo ci aju xam naa kii gën a jaaxal borom bi subhaanahu wa taala bu doon dana ñaan mooy jullit buy ñaan lu amul njariñ waaw julit buy ñaan loo xam ne amul njariñ ni nga koy déggee mooy ki nga xamante ne day jël waxtoom bay ñaan léeg-léeg war naa jàng ni muy ñaane ni nga xamante ne ñi ngi naan gan ñaan laay def gan ñaan laay def waaye itam war naa xoolaat li muy ñaan mooy lan ndax léeg am na fu kilifa di toll ci yow bu la mayoon ab jotaay ak boppam am na loo xam ne danga nga ko ñaan c'est-à-dire da nga ko ñaan wala da nga jàpp ne sax lii moom doonut loo xamante ne noonu la nekkee lu mënta ñàkk ci sa dund bu boobaa doo ko ñaan loola Oustaz Alioune Sall mi mën a jàngale yal na ko yàlla yokk sàmm doon na nettali ne waa ji da doon ñaan audience Abdou Diouf wala njiitul réew ba may ko ko moo ne ko xale yi bu ñuy football sama doom day jooy bal ma bëgg nga may ma bal <laughs> mu bëgg nga boole ma ak ministre bi mu may ma bal cest à eh, day tegtale ne waa ji li muy ñaan nit manoon na ko ñaan te doo àgg foofa borom bi subxanahu wa taala mi gën a kawe loolu. Euh, boo koy ñaan am na yu baree bari yoo xamante ne nii mooy taxawaayu ñaan gi loolu nag junj rek laa ciy def ndax fii jamono ji toll ak yaakaar yi bëgg-bëgg yi waaye nañuy wéy di rafet njott suñ digganteeg suñ borom subxanahu wa taala waaye nag di ñaan loo xamante ne lu ñuy jariñ la ci suñu dund waaye di ñu jariñ itam ci suñ diggante ak moom rafet njott gi da ciy bokk ne saa yu nit ki ñaanee na jàpp ne lim ñaan boromam moom moom nangu na. ndax ñaan gu nangu ak gis li nga ñaan ci saasi ñaari yëf yu bokkut la ndax borom bi subxanahu wa ta'ala moom lim dige mooy ku ma ñaan ma may la waaye leneen li doon ay melokaanam nag mooy ku xereñ la xereñ boo doon tabax lu da ngay woo xereñ ci wàllu tabax ñu ne ko kat moo ko jàng ba am ci diplôme kon xereñ ne ci mooy tax lenn lu ne fa mu war a dugg mu dugal ko fa. borom bi subxanahu wa taala xereñteem gi ci lépp lum man di doon mooy tax léeg-léeg nit ki ñaan loo xam ne loolu gënut ci moom maanaam mu jot ci mo mu jot ci lool yi muy ñaan ni mu ko ñaanee gënewut noonu am na lu gën loolu ci moom moo tax mu tànn loo boromam léeg-léeg borom bi weccoo ko weccoo lii lee waaw weccoo lii lee moom li muy ñaan mooy alal waaye nag ak wér gi moom bàyyiwu ci xel te mbir mi bala koo jëriñ dara mu ànd ak wér. borom bi defal ko wér nga xamante ne fi mu ne am na yu bëree bëri yum la defal ba nga joggi ci waaye léeg-léeg nga fàtte ko ba di ko xarab léeg-léeg nga fàtte ko ba di ko ñaan mu mel ne ñaan gi daa yeex nangu wala gisoo résultat yi nga di ko xarab ci yàlla ci yàlla ju dul jeex waaw léeg mu mel ne da ngay jàpp ne dara fàtte léeg-léeg mu mu mel ne da ngay jàpp ne dara fàtte yàlla xam na ne léeg sax nit di la sàkkul ñaan wala nga di ko ñaanal yitte ji nga ciy def yow mi koy ñaanal dongu yitt ji nga ciy def ci léeg nga def jaamu yàlla gu rëy waaye wala jaamu yàlla goo sonne ndax rëy gaag ndaw gi borom bee xam waaye yow en tant que nit daal ci li nit di daj sonne nga ko waaye fasaale nga ko sa kemtulaayal kattan waaye bu jant bi fenkee rek mu mel ne mosoo koo ñaanal ndax moom dafa am len lenn képp képp képp la def la teg bëtam ci àdduna te loolu la jàpp ne ngir euh, ñaan gi nangu mooy loolu daa war a réglé te fekk am na yeneen yu baree baree bari yoo xam ne mi ngi réglé wu waaye yëgu ko am na yu baree bari yoo xam ne mi ngi réglé wu waaye moom yëgu ko ndax lenn lim jàpp na lool rek moo war a sotti loolu ñàkk a sotti mooy tax mu jàppee noonu yëf yi léeg-léeg mu dem ba jur ñaaw njort digganteem ak boromam borom bi di la xoole bëti goree di ndax lim la defal xamoonum toll waaye yow fi nga eh, sa bëgg-bëgg bi rek nga xam ndax doomu aadama moo bindoo noonu yal nañu borom bi jéggal suñu gàttan yooyu ak suñu yaakaar yu ñaaw yooyu waaye defal ñu xéewalu ñu rafet njortu ci moom yëg ne ku ñu bëgg ku bëgg la ndax moo waral njàmbat li te buñ ne tekk nag xalaat li nga xam ne moo ñu ko defal te muy lu gratuit ci ñun dëgg-dëgg ñu war a féetewoo sax léeg di ko sant ci rusati koo ñaan moo tax ñi nga xam ne dañ doon dund yàlla ci seen roo di ko dund ci seen xol dañ daan dem ba toll foo xam ne yëkkati seen loxo naan yaa bi dañ koy rus dañuy am kersa bu ñuy bëgg yëkkati seen loxo seen loxo yi day dis ganna ñu faf ko wàcceewaat ñu faf ko wàcceewaat ndax am kersa ndax am kersa ci seen borom baru soti koo ñaan waaye féetewoo di ko sant moo tax borom bi ne ñu néew ci nit ñi ñooy doon ñi may sant ndax ñu néew ci nit ñi ay ñaankat lañ waaye ñu ëpp ci nit ñi ay ñaankat lañ waaye ñu néew ci nit ñi ñooy ñi may delloo njukkal ne man ak jërëjëf yow dëgg dëgg fàttewoo ma dëgg-dëgg fàtte ma loolu kon lu borom bi mooñaale nit la bu ko borom bi amul nag nit bu koy jéem a am sonn waaw borom bi bu fekkee amul maturité bu ko topp te fu mu mas a tuddee mbooloo mu bari yàlla tegu ci aw tagg mbooloo mi moom lam cay teg rek nangam sàngam lay doon waaye nag ñu néew ci nit ñi nangam ñu néew ci nit ñi nangam moom fu mbooloo moo gën a baree lim ba gën a néewoo ko cey bàyyee xel waaye teewul nag muy wërsëgal teewul muy xéewalal teewut mu yërëm ñëpp ndax yaatu gum ko yaatule moo tax moo tax sax mu bëgg nga di ko nuru loolu moo tax nit ki daa war a dem a dem ba borom bi subxanahu wa taala sori na fuñ koy misaale ci nuroog nit waaye nag dema a dem a dem ba nga xamante ne da yàlla da yàlla xam nga rabbu mooy bi mooy yàlla rabbaaniyin mooy nit ki nga xam ne dafa yàlla nit ñi nga xam ne dañoo dem ba nuru ko borom bi sóoti ci ñoom sóobu ci ñoom jikko ay melokaan. waaw léegi nag dañuy am beneen taxawaay buñ taxaw moo tax kooku day tiim nit kooku day tiim nit ñi day tiim nit ñi li tax ki war a doon kilifa war a fexe ba yëkkati koo noonu mooy dem gi muy dem ba nuru borom bi subxanahu wa taala moo koy yóbbe loolu waaw borom bi day koo xamante ne ku bari yërmande la waaye yow itam da ngay dem ba turam wa jeexitali jikkoom yaag e, melokaanam wa soobu ci yow ba nga xamante ne yërmande ji da lay faw xa da lay wër fépp. moo tax mu waxoon yonent bi alayhi salaatu wa salaam fa ma rahmatin xam nga borom bi subxanahu wa taala mooy arrahman waaye mu wax yonent bi ne ko fa bi ma rahmatin ndax yow yaay annabiyu rahma waaw te te ku ne xam na ne arrahman bi subxanahu wa moo ko matale moo tax arrahman allama alquran moo tax bismillahi arrahman waaw kay waaye fa ma rahmatin mu yërmande jooju nga xam ne. moom la yonent bi alayhi salaatu wasalaam royee ci moom royee ci moom ba gën koo def ñëpp yàlla nee na ko moo tax nga mën a ànd nit ñi ndax man mii kat doon arrahman moo tax ma mën a doon bóorum nit ñi ci waxin waaw li tax mu mën a doon bóorum nit ñi mooy ñàkk a fayantoog nit ñi yàlla bu doon defanteeg nit ñi koo defanteel yam ak moom xamoo loolu koo defanteel rek yam ak moom koo bëgg koo bëgg a féete kaw da nga koy nangoo muñal waaw koo bëgg a féete kaw da nga koy nangoo muñal da nga koy nangoo muñal léeg sax da nga koy nangoo baal di ko jéggal ba noppi tiim ko boo ca àggut nga góorgóorlu ba mën a jëllale mooy tax ngeen mën a am jàmm mooy tax ngeen mën a dund dundin wi nga xam ne moo gën moo tax borom bi subhaanahu wa taala ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam wa ma arsalnaaka illa rahmatan lil alamin waaw wa ma arsalnaaka illa rahmatan lil alamin dama laa yónni nga nekk yërmande ñeel mbindeef nga nekk yërmande ñeel mbindeef yi moom borom bi subhaanahu wa taala mu ne mooy ki nga xam ne mooy arrahman mooy ki nga xam ne mooy arrahim yonent bi di dox bis balam santaane gaaya teggi ko musiba mbabb kumba mu rëy wàcc ci seen kaw ak i jafe-jafe ba moom bëñam damm waaye nag mu mel ne tey la yàlla xool ba xam lim ko ne illaa rahmatan lil alamin nu muy taxawee ak moom ak lim ne mooy yonentu bi yërmande bi ni muy taxaweek moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñëw sëgg mu jàll waw maanaam sëgg mu jàll defante wut defante wut kilifa du defante kilifa du defante doo yilif kenn doo yilif kenn te bu yàggee ñëpp yab la wala boog ñëpp ñeme la te buñ la ñemee rek yab la olo fay wax ne ku miin sab xuloo yab la ku miin sab xuloo yab la yonent bi ñëw jëllale borom bi ne ko fa bi ma ne kon jeexital yooyu nga xamante ne moom la nit ki di jëlee ci borom bi subhaanahu wa taala mooy tax day dem ba mu jàgg day rus yàlla da koy rus da koy bëgg waaye da koy rus ci àdduna rek nit ku la féete woon fenn fi bu yàggee nga am kersa ci moom bu yàggee boo des gor nga da ngay dem ba mu yàgg da ngay am kersa ci moom da nga def dana def sax lu noonu nga am kersa wax ko ko ndax kersaa tollu noonu kersaa toll noonu ndax sa sànqal la ëmb sa sànqal la ëmb moo tax da ngay ëmb kersaam te doo ko sañ a bañ da ngay ëmb kersaam te doo ko sañ a bañ fa bi ma rahmatin minallahi linta lahum waaw bu boobaa nurugum nuru borom bi subhaanahu wa taala tax moo tax mu ne ko walaw kunta foofu nag la kenn ku nekk di taxaw ci ñun ngir yëg ne yonent bi la yàlla joxoñ wax ko loolu ndax moom melu ni waaye yow war ngaa góorgóorlu ba feebar yi nga ci am nga faj ko feebar yi nga ci am nga faj ko ndax moom borom bi daa wax ne ko yërmande ji nga am moo tax nga mën a yilif gaa yi waaye boo melut woon ni nga mel waaw doon koo xamante ne da dëgër daga ngaa dëgër da ngaa jëflanteel am na nit kook day naqaree jëflanteel maanaam tey bu doon sab xarit rek boo moytuwul ci lay ngay dëkk woo naa la jotuma la dana ko kaasa kaasa kaasa kaasa kaas ba ngay bëgg a faatu waaw nuyu la ni ma fayee dafa gàtt maanaam du bàyyi benn détail doon koo xamante ne daa naqaree jëflanteel am na ñu mel noonu am koo xam ne nag daa neex a jëflanteel moom boo juumoon ba wax ko wax ju joonu mu dégg ko déggin wu rafet bu la gëjoon a gis xalaat ko xalaatin wu rafet waaw boo doon séddale séddoo ko mu jàppee ko jàppin wu rafet maanaam doon ko neexe a jëflanteel yàlla daa bëgg ab jullit doon ko neex a jëflanteel ci moroomi jullitam te loolu la seytaane di bañ moo tax mu lay roof ñaaw njort bu ko defee nga naqaree jëflanteel waaw fexeel mu dañ fexeel mu dañ rik waay eh, fexeel ne damaa tàmbulee bëgg baax mbokk yi nañ jël engagement ci kanam suñu borom subhanahu wa taala ne ñun dañoo bëgg a baax dañoo bëgg a nuru yonent bi ndax yàlla daa wax yonent bi ne ko man maay aj yërmande ji xooloo li ma gaa yi di def xooloo li ma gaa yi di def waaw man li ma leen man mi leen bind ak fi ma jaar ak ñoom teewul ñu mën a samp ab bant ne bant be yàlla waaw ne bant bee yàlla woon ma ginnaaw di ma saaga di ma saaga di ma ñàkkal di ma ñàkkal solo waaye teewut ñuy nooy sama ngelaw li sama oxygène bi la nooy noyyi ngelaw teewut ñuy dox ci sama suuf si maa ko tàllal waaw teewut ñuy lekk mu rees ñuy lekk ma téyel leen lekk gi ba lekk gi rees waaw teewut dañuy soxla wanak sax ma téyel leen seeni sidit bañ jëm ca fañ ko soxlaa doo ko faa mën a def du ma leen mere ba naan la ah, comme man nga doon fontoo léegi def ko ci biir nit ñi pour ma pour ma toroxal la nga xam yàlla nee na du ma def loolu te wut lu ne ñu ngi ma koy def waaye xoolal ni ma xoolal ni ma leen di def mhm. dañ may fàtte ci lépp waaye teewut man ma tàllal arrahman rek muy lu yaatu muy lu yaatu loo xam ne ñëpp ci xaj ñëpp a ci xaj wallahi ndax bëgg bu ëllëgee yowmal xiyaam buñ taxawee ci sama kanam ba may jëfandikoo arrahim duñ am luñ may yedde waaw ndax arrahim moo gën a xat foofa foofa ña ko moom mooy ñi ma déggaloon waaye fii ci àdduna nag damay bàyyi loi yeeg jamono jeeg atmosphère bi mu àtte leen yéen ñëpp ngeen bokk ci yem bu ñëwee ba taxaw ci sama kanam nag bu ma leen di yedd ñu xam ne man yàkkamtiwu ma ñu xam ne man yàkkamtiwu ma moo tax alhamdulilah alhamdulilah ku góorgóorlu ba dog yoon wasantal yàlla ndax am nay jamono guddi yoo xamante ne bu fa sëg dund yamoon nga bokk ci ñu perte ña waaye borom bi subxanahu wa taala ku mën a muñ la. moo tax léeg-léeg nit jikkoom soof la muñal ko fi mu ne xamoo ba xam bu déwénee mooy doon sab xaritam déet ba xam bu déwénee mooy doon sap xaritam déet xamoo ba xam li ngay wuti ci loxoom la ko yàlla nar a jaarale moo tax bul gaawtu mukk ci di àtte jëfi nit ñi ak seeni taxawaay bàyyi leen ki bind nit ñi moom mu euh, àtte leen moom mu taxawu leen ni leen war a taxawee loolu ay yëg-yëg la yoo xamante ne day dëgëral suñuy ñaan ci suñ borom subxanahu wa taala te buñ ko lijjantiwut du dëgër. buñ ko lijjantiwut du dëgër kon ñaan yeeg jaamu yàlla geeg koor yeeg saraxe yeeg julli yeeg lépp liñ ci jublu rek mooy baax liñ ci jublu rek mooy baax léegi nag de del de nattu sa bopp nag ci li ngay def del nattu sa bopp ci li ngay def waaw nit ki lu muy entraîner léeg mu natt boppam ndax mi ngi koy jariñ daraam déet nag xool ba xam yan jeexital la def ci yow a salaata tanha anil fahsaa'i wal munkar julli ga looloo ko tax a jóg te moo gën a màgg ci jaamu yàlla yi kon moo yóbbaale lépp kon moo yóbbaale lépp weer wi ñu nekk di weeru rajab ci la xew-xew bu rëy boobu nga xam ne moom la ñuy wax al isra wal mi'raj amoon al isra wal nga xam ne tukki la boo xam ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo ko tukki moo ko tukki tukki boo xam ne tukki guddi la waaw sayru layl doxub guddi la doxub guddi moom la ñuy wax isra Euh, euh, afa euh, te mooy rañaan rañaan rañaan daa am am na loo xamante ne ci kanam tuuti tukkim jël lay doon muy waxtu wi ñu toll bu gënoon a yéeg ca diggu guddi ga mooy doon rañaan nga xam ne xaaju guddi nga jóg léeg-léeg kuy dox jàmm daanu ko def waaye nit dana am soxla soo xam ne mënatut fanaan mu topp guddi ga waaw am na loo xamante ne fajaru lay doon mhm. moo ngi jëloo xaw a bokk am loo xam ne mu xëy lay bokk lay doon am loo xam ne njànq lay doon am loo xam ne gont lay doon bu guddee nag te fajar jotagut te guddi gi eh, sori na loolu la ñuy wax rañaan moom la yonent bi alayhi salaatu wasalaam tukki tukki nga xam ne ci guddi gi lay doon doonul guddi gi waaye ci biir guddi gi aw dogit yonent bi alayhi salaatu wasalaam tukki na ci tukki boo xam ne ña daan tukki te di ko dox doxiinu nit daan nañ ko dox lu ëpp ñeen fukki fan waaw daan nañ ko dox lu ëpp ñeent fukki fan yonent bi alayhi salaatu wasalaam boroomam rañaane ko rañaane ko ci génn guddi waaw te guddi ga yëpp loolu njàngat mi ci nekk mooy yéemu yéemu yéemu waaye nag ki ko defal mooy borom bi subhaanahu wa taala mooy ki ko defal mooy borom bi subhaanahu wa taala ci weer wi ñu nekk la woon nga xam ne al isra am nañu koy tekkee ne mooy tukki boo xam ne tukki suuf la tukki boo xam ne nit ki da dox ci suuf bokkut ak yéeg jëm asamaan loolu mooy almiraaj te mooy tukki bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam jóge màkka ila baytil maqdis dem fële nga xamante ne mooy baytil maqdis te mooy Jérusalem bu dee almiraaj mooy rexlatu samawiya gi nga xam ne moom la yonent bi alayhi salaatu wasalaam jóge ci baytil maqdis ila samawaatil ola ila e, summa ila sidratil muntaha summa liqa billahi subhanahu wa mooy tukki bi nga xam ne moom la yonent bi alayhi salaatu wasalaam yéegee jóge baytil maqdis dem ca asamaan ya jóge fa dem ba sidratul muntaha waaye jóge fa dajeeg boroomam subhaanahu wa taala loolu ci weer wi la amoon te la ko taxoon a am la ca nit mën a xam mooy sërite bi yonent bi indi te mooy julli waaw ca nit mën a xam mooy sërite bi yonent bi indi te mooy julli waaye ak ya ko fa borom bi subhaanahu wa taala woon yam ko fa woon li nuriyahu min ayatina innahu huwa samihul basir loolu la wax borom bi ne ngir nga xam ñooy kan ngir ñu won la suñuy màndarga ngir ñu won la ñuy màndarga yu dalal sa xel waaye kattanu borom bi subhanahu wa taala ci la loolu mën a amee tukkib suuf bi ak tukki kaw gi ñaari yëpp yéeme ñaari yëpp yéeme Oustaz Alioune Sall mi mën a jàngale day wax ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa tukki ñaari tukki benn tukki bi daa nite benn bi du tukkib nit waaw ah, tukkib nit bi mooy jóge Màkka dem Madina tukkib nit la moo tax daa ànd ak nit <laughs> waaw tukkib nit la moo tax nit la àndal ne moom muy Seydina Abubakrin Siddiq ñuy def yëfi nit ñuy def yëfi nit di làqu ci tàndarma di làqu ci montagne di dugg ci xunti gaay di leen topp ñuy moytu loolu yëfi nit la <laughs> yàlla moom eh, mi ngoog xam nga yàlla mi ko jële woon màkka guddi yéegal ko ca asamaan ya mënoon na ko ne coppet màkka cëpp cëppeel ko Madina diggante booboo gën a jege di diggante Makka ak Madina moo gënoon a jege diggante Makka ak baytil maqdis ba ko borom bi bëggee baytil baytil dis te muy tukki bu nite wut xaaju guddi la ñëw Jibril yéegal ko ci burax nga xam ne doo xam ba xam dañ naan lay ne cëpp xef ak daal dem na waaye loolu diggam ak boroomam la ak yem ca namm waaye yonent bi nit la bi yàlla nammee ñun nag nit di sabablu ak mu jàngal ñu ne nit it day góorgóorlu da koo bàyyi tey mu góorgóorlu ànd abu Aboubacar wor mburu yor muraake yorum ndox dina butu ci ay montagne di dugg ci ay xunti di dugg ci ay xunti borom bi di ko seetaana ko njàmbaaram moo tax bi mu demee ba gaa yi jege ko mu ne Aboubacar inna allaha ndax moom xam na ne borom bi ko defaloon loola mën na koo defalaat loola te defalu ko tey te yàlla du ko gàcceel ndax moo koy liggéeyloo waaye dalay bàyyi nga góorgóorlu li nga man lépp yaa koy defal sa bopp waaw li nga man lépp yaa koy defal sa bopp borom bi seetaan la bis boo góorgóorlu ba def li nga man lépp ku la nar a toroxal yàlla aw la ku la nar a toroxal rek yàlla dox sa digganteeg moom waaye boo nee yàcc yàlla borom bi subhaanahu wa taala seetaan la ndax moom du ànd ak ku yàccaaral waaw yàlla du xaritoo ku yàccaaral du dimbali ku yàccaaral da ngay góorgóorlu nag da ngay góorgóorlu li nga man lépp nga xëy defal ko sa bopp def ca sa kéemtalaayal kattan moo tax tukki tukkib nit ba Abubakrin Siddiq radiyallahu anhu ànd ak yonent bi ñu jóge Màkka di kof kofee ka nëbbutu ci ay xeer noonu yee di leen topp ba Madina tukki bi nitewut nag te yàlla soxlaal ko boppam te loolu mënalu ko boppam borom bi subhaanahu wa taala moo koy defal moo tax subhaana allazi asra bi abdihi laylam min al masjid al xaraami ila al masjid al aqsa allazi barak naa xawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwa samiul basir kookoy borom bi subhaanahu wa taala gàcc ngaalaamaa moom waaw moom mi nga xamante ne moo rañaane jaamam bi moo rañaane jaamam bi keroog bi muy defal yonent bi jëf ji gën a rëy nga xam ne moom rek a ko mas a am te kenn dootu ko amati ku dut moom ab jaam la ko wooyee ndax ñaar rek a mën a jàkkaarloo bu boobaa yàlla amul ndawle yàlla amul nawle lu nit màgg màgg ci moom jaamam nga ki gën ci nit ñi mooy ki gën a nangu jaam gi waaw ki gën ki gën ci nit ki mooy ki nangoo fàtte bépp dara jaam ci kanam boroomam subhaanahu wa taala doon jaamam waaw moo tax euh, moo rañaane yonentam bi waaye ci guddi guddi googu nag ci weer wi la nekk wax nañ ne mooy ñaar fukki fan yi ak juróom-ñaar daañu ci dellu si waat incha allah ci jotaay yi nekk ci suñu kanam yal nañ yàlla may ñu dund ba àgg ci jàmm waaye may ñu itam ñu bàyyi xel bu baax a baax njàngat mi nga xam ne moo nekk ci xew-xew yooyu te man ñoo li njàmbaar man ñoo li pësteef suñ digganteeg suñ borom subhanahu wa taala ñoo ngi leen di jaajëfal bu baax a baax ñaan borom bi mu def jàmm ci réew mi def ko ci réew ñu wër ñaan ko mu yokk ñu wér yàlla defal ñu sutura yàlla defal ñu tawféex yàlla defal ñu naataange musal ñu ci pexem seytaane musal ñu ci pexem jinne musal ñu ci pexem nit musal ñu ci suñu ayu bopp